ngeen di abonné fii ci a jot mboolem vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir a xam li nga xam ne mooy réussir. À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, 33 864 75 15 Abdul Mbakke la doomu soxna Maymuna Mbakke moom Cheikh Abdul Karim yàlla dogal na mokkal na alquran xifdan wa tajwidan wa tilaawa kàddu gi ngeen dégg léegi xam ngeen ni ku ne xam ne ni mënees sa koo déggee ba makkatal mukarrama fi nga xam ne nii ñun ñëpp nangu nanu baat bu neex bu ñu tajwide alquran wa fi misr al arabia wa fi jamia anhaai alam kon moom mii moo nu doon ubbil ñu doon ko présenté ñu xam ni kii sëtu suñu Abdul Karim Mbakke la ci daaraam it ju ñuy wax daara makaarimul axlaax soxna Mbeen Mbakke moom sëriñ Abdul Karim Mbakke moo ki saytu daara jooju ren jii bi ñuy tari kéemaan feeñ na kéemaan nga ca feeñ mooy am na ca xale yi nga xam ne nii mokkal nañu alxuraan ñooñee tey am na ci ñoo xam ne seeni waajur bi ñuy daw ñëw ci sëñ Abdul Karim Mbàkke nee nañu ah acam du ci am ndam de waaye ñooñee tey rëccu nañu seen wax joojee ndax xam nañ ni day sëñ Abdul Karim huwa saalihul muslih dafa taxoo ki nga xam ne nii day defar di yéwénal mbir yi te mooy Cheikhul Khadim kon tey jii ñu yàq démb sëñ bi xëcc leen ba defar leen ba defar seeni njaboot ñoo tari tey alxuraan ba génne ne naa ko makaarimul axlaax day bu fekkoon toon loolu dong ci lay am ñu ni raw na waaye nag alimta ashrafa wa ajalla min alladi yabni anfusan wa aqula subhanaka allahuma xeyr muallim kon Mbàkke jërëjëf kon Serigne Fallou nga tàmbaliwaatal ñu bu la neexee nga lël feneen allahu nuru nga ñu joxoon léegi waaw bu neexee nga wéy ko acca fu la neex أعوذ بالله من الشيطان ngeen di abonné fii ci Tawfekh a jot mboolem boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy réussir. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, 33 864 75 15